discours 31 décembre niñ ko baaxoo di def saa ak at jeex li lim euh, bëri na waaye dañuy njëkkee euh, melokaanu discours bi ci jëmm ji ak euh, yeesal gi ñu seetlu nii ci couloiru pale bi la ko defee à l'américaine presque bala ñoo sori ndax Georges Déthié Diop ak Ndaté Diop ñoom ak Ndata Diop ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci premier étage bi euh, dañuy jokkoo ak ñoom euh, foofu xaw ba xam Georges yaa ngi ñuy dégg. waaw Babacar maa ngi lay dégg. yàgg say gan ci kanam tuuti di ngeen débriefer li nga xam ni euh, moom mooy discours bi ci wolof lan ngay njëkk a jàpp laata Ndate di la fekk si foofu. Babacar li gën a jàpp ci wolof ci li njiitu réew mi gën a wax moo di ab discours la. contexte bi contexte bi moo bi moo di crise sanitaire bi euh, maanaam Covid bi Covid bi li nga xamante ne moom la jur ci biir àdduna gi ak li nga xamante ne def na ko ci biir euh, Sénégal ñi ci ñàkk seeni bakkan ak li nga xamante ne ñoo ci euh, feebar euh, ba léegi muy gën di yokku woote gi nga xamante ne jëmale na ko ci askan wi ci tënk ku nekk dugal loxoom soobu ci xeex bi responsabilité individuelle ak responsabilité collective li nga xamante ni itam Covid bi jur na ko ci biir àdduna gi Sénégal desu le Sénégal desu ci gannaaw bu ma nee desu desu ci gannaaw ça veut pas dire que ñun daa am fenn fi nga xamante ne gën nañoo raw ñeneen ñi waaye euh, mbas mi laal nañu bu baax a baax loolee tax itam am na la mu jur ci koom jur yi jur ko ci itam ci li nga xamante ne moo di secteur yëpp mu di relance bi àdduna itam ci li nga xamante ne moo di euh, peut-être que li mu ci wax bëriwul moo di émigration clandestine bi masawu ak itam euh, voilà ne nguur gi dana ko xeex maanaam leneen bokk na ci njiit réew mi wax na li nga xamante ne ci la gën a taxaw nag moo di ëllëg te ay projet la wax. jërëjëf Ndate yegg si na. waaw Babacar. aywa aywa Ndate ci tënk euh, li Macky Sall lim lépp ci li mu def ak li mu nas. liñ ci mën a jàpp moom mooy fa mu dooree moom moo di di xam ne nii deux mille vingt nekkoon na at mu méttee métti ak mbas mi di ñaanal ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ci mbas moomu ñi feebar tamit mu leen di ñaanal ak wér ci leneen tamit daal dinay félicité bu baax a baax personnel bu santé bu Sénégal encouragé ñi nga xam ni ñoom ñoo yor njàng mi di communauté scolaire ndax ñoom mbas mi nee nañ def nañ seen kamtalaay kàttan ba njàng mi daal di wéy mi ngi jaa tamit ñi nga xam ni des nañu ci mbas mi ci euh, mbas mi ak ci mbëkk mi mbëkk moomu di immigration clandestine njiitu réew mi nee na réewum Sénégal dina taxaw tem ba ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, organiser loolu nekk master yi di tax ba gone yi euh, di leen miroité loo xam ne nii day tax ñu dem ca biti réew ñu jànkonteeg ñoom ci wàllu woowu tamit nee na naam mas mi am na waaye weeru mars ba léegi ba mu doro fii ci réewum Sénégal tëgg nañu ab plan de résilience boo xam ni def nañ ci lu toll ci junniy milliards ci suñu koppar ak force Covid 19 ak yëpp ñi nga xam ne daal euh, def nañ ko mu ni loolu yëpp tax na ci jamono ji suñu wàllu wér-gi-yaram taxaw na daal di dékku li nga xam ne rek euh, moom moo di mbas moomu ci loolu sax muy xam na nii ci wàllu ko wér gi yaram taxawal nañu lu tollu ci juróom fukk ak ñaar te ay euh, centre euh, de traitement épidémiologique ci jamono ji nga xam ni réewum Sénégal benn rek la amoon laata mbas mi ci loolu tamit mu ni mi ngi wëlbatiku jëm ci wàllu ko ñàkk yi nga xam ni ñoo ngi koy xaar ngir am ko ci respect règlement yi nga xam ni euh, moom la OMS daal di tëral ñu gis ni ak yokkuteeg ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan xeex bi mi ngi wéy muy xam le ni naam gañe ko waaye yaakaar na a am su fekkee askan wi méngoo nañu ak sàmmoo ak mesure barrière yi moom tamit njiitu réew mi daal dinay euh, wax ni mesure barrière yooyu nekk na loo xam ne nii ñaax na askan wi wala ñi nga xam ne ñoo ñooy takk der yi ak kilifa yi ñu bay ci seen euh, tànk tubéy ba fexe ba askan bi mën a méngoog lu ni mel ci amélioration système sanitaire boobu sax wax na ci ni euh, fas yéene nañuy taxawal hôpital yu bees yooyu nga xam ni dañ ko def ca Tamba ca Sédhiou waaye tamit ca Diourbel Matam ak Ndar Géej lu jëm ci tamit xeex ñi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu wopp cancer muy xam ne ni du tollu ci juróom benn centre de dialyse dinañ ko walla ak leneen mu fekk ci juróom fukk ñaar fukk ak juróomi centre yi nga xam ni moom moo fi am ci lu jëm nag ci wàllug euh, ñi am wopp cancer mu ni ak centre oncologique bi ñuy def ca Diamniadio yaakaar na ni loolu dina tax paj mi gën a euh, taxaw ci miim réew ci wàllu paj moomu sax mu ni nam nañu recruter ci atum 2000 mille lu toll ci juróomi téeméeri médecin ak junniy corps paramédicaux yoo xam ni dinañ leen recruter yóbbu leen ci gox yi nga xam ni ñoom ñoo gën a sori ci biir réew mi wàllu entreprise yeeg jafe-jafe yi ak li nga xam ni mbas mi moom la indi mu ni ci wàllu woowu jàppale na ay secteurs yu ci bëree bëri waaye entreprise mu ni lu jëm ci wàllu culture lu toll ci juróom ak genn wàll ci ay milliards jàppale nañ ko tourisme lu toll ci juróom fukki milliards ci wàllu tourisme soowu sax muy wax ni ak géeg géegoo yi ak liggéey yi nga xam ni moom la ñu def ci littoral bu ñu nekk fële ci Saly Porte daal ba tax ba sauvé lu toll ci juróomi hôtel yoo xam ni naroon nañoo nërmeerlu ci wàllu woowu sax muy xam ne ni plan de résilience boobu tax na lu toll ci junni ak téeméeri junni ménage ci réewum Sénégal jàppale nañ leen jàppale gi tamit egg na ba ci facture ko courant yi ñu daal di leen ci jàppale ci benn bimestre jàppale lu toll ci euh, fukk ak ñaar ci ay junneeg lu tega noonu téeméer ak ñaar fukk juróom benn ci ay euh, million doomu aadama kee junniy doomu aadama yoo xam ne nii jàppale nañ leen ci wàllu taux de croissance bi mu ni fan ko nattoon jëm nekk na loo xam ne nii moom moo di 1,8 pour cent ci atum 2020 waaye lii di mbas mi tax na xaw naa nërmeerliwu waaye mu ni yaakaar mi ngi am yaakaar googu mu ngi ko jëlee ci wàllu nawet bi nga xam ni neex na ci réewum Sénégal ndax budget campagne bi koppar yañ ca def jële ko ñeenti euh, fukki milliards yóbbu ko ci ba juróom benn fukki milliards ngir fas yéene jënd ay matériel agricole ci daal di na koy euh, yëkkati wax moom njiitu réew mi wax na ci wàllug euh, mbay moomu ak la nga xam ni moom lañ ko góobee ci wàllug céréales ak tonnes ya nga xam ni euh, moom moo ci am mu ni loolu téeméer boo ci jël rek juróom-ñeent fukk ba ak juróom nekk na loo xam ne ni mën na tax ñu dunde ko ci biir réew mi ci wàllug gerte lu toll ci junni ak huit cent quatre-vingt-dix mille tonnes nekk na loo xam ne ni góob nañ ko ci jéego yi nguur gi def bokk na ci njëgu gerte gi nga xam ni yóbbu nañ ko ba ci juróom fukki dërëm daal di nekk loo xam ne nii lu rafet la loolu yëpp muy wane ni daal nekk na loo xam ne nii daal ay jéego yu ñu def ba tax ci jamono ji mën nañu dundee yaakaar ci wàllug ndaw ñi ak wàllug emploi tamit daal dina ci yëkkati wax ni loolu moom mooy force motrice bu réewum Sénégal ndax jàppale jigéen ñi ak jàppale ndaw ñi loola bu ñu ko defee rek yaakaar na ni euh, jéego yi mën na gën a bar ci wàllu woowu sax muy xam ne ni projet bii di DER euh, naam su fekkee ni ñaari at d'existence rek la amoon ay junniy ndaw ak jigéen daal dinañ leen di jébbal ak njàppale loolu nag euh, nekkul ci budget boo xam ni toll na ci fanweeri milliards ca bañ koy door ci njàppandalu partenaires yi ak projet bu yees boo xam ne tëral na ko muy PAVI mu war a jëm deux mille vingt ba deux mille vingt deux loolu mu jàpp ni dinañ taxawal lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ci ay junni emploi direct ak lu toll ci juróom ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay junni ay emploi indirect ci wàll woowu sax mu ni lu toll ci ñaar fukk ak ay junni entrepreneur dina euh, jàppale ba tey ci wàllug euh, jàppale réewum Sénégal ak fexe ba ndaw ñi am ci lu ñu jàpp lu toll ci fukk ak juróom ci ay centre de formation fexe nañ leen taxawal ci atum deux mille vingt et un naam sax muy xam ne ni mbas mi ba léegi mi ngi fi waaye nee na ñoo ngi wéy ci suñu yoon te yoon woowu buñ ci jugul yaakaar na ni ëllëg dina baax loola la koy firndeel moom mooy wàllu infrastructure yi nga xam ne ñoom ñoo koy taxawal jëm na ci wàllu dem geeg dikk gi ci wàllu tali ak lu toll ci juróom-ñeenti projet yoo xam ne ni daal yu yees la yoo xam ni tëgg nañ ko ba tax ba réewum Sénégal bokk na ci top 10 meilleur réseau routier ci àdduna bi ci loolu sax euh, muy xam ne ni lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar juróom-benn ci ay kilomètres autoroute am nañ ko waaye autoroute yooyu mun ni du cee yem ndax ñoo ngi xaar ci atum 2021 autoroute bi nga xam ni euh, moom moo jugee Mbour Fatick euh, Kaolack waaye tamit autoroute Thiès Tivaouane ba Ndar Géej BRT bi li muy def ci biir Ndakaaru tamit gis nañ ko gis nañ tamit TER bi mu ni 2021 dina door ay euh, liggéeyam euh, wax tamit ci wàllug lépp li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu tali yooyu mu ni lii di VDN bi tamit nañ ko prolongé ba autoroute euh, tamit réa dinañ defaraat ay tali fu ci demee ni ci yeneen i réew rawatina ca Touba ca Tamba infrastructure routier yooyu tamit nekk na loo xam ne tamit lu am solo la ci ci wàllu ko port di tamit am na ay infrastructure yu yees yoo xam ne nii dañ ko taxawal Ngalandu ak port futur bu Ndayane nekk na loo xam ni daal nekk na dinañ ko def ci atum deux mille vingt et yeesal lii di plateforme technique am gën ko yokk doole te aéroport yi nga xam ne moom la ñuy samp ci gox goxaat yi tamit dinañ ko door ci atum deux mille vingt et un dooroon nañ ko ci Ndar Géej waaye dina ci deux mille vingt et un dina am yeneen aéroport ci gox goxaat yi ku ci demee ni Ziguinchor Touba Touba Kédougou Kolda Sédhiou Cap Skirring Linguère ak yeneeni bërëb yoo xam ne nii dina euh, dinañu xëcc lii di aéroport yi ba yóbbu leen fi wàllum courant gi ak euh, dëkku kaw yi tamit wax na ci accès universel mi ngi ko jàpp ci atum deux mille vingt cinq nee na boobu la askanu Sénégal ñëpp di war mën a jot ci wàllu euh, courant wax na timit ci lu jëm comme ni ma ko waxee solaire bi ak njàppandalu PUDC ak yeneen i programme yoo xam ne nii tëggoon nañ ko muy programme lampadaire solaire yi ci ba mu dem ci euh, cent mille lampadaires wax na tamit ci lu jëm ci euh, wàllug euh, lii di taux d'électrification bi mi ngi toll ci onze virgule trente six pour cent waaye loolu fas yéene ko yokk ci gox goxaat yi ci budget bi nag mu ni yokkute am na ci ndax ci ay budget bee ñu génn mi ngi tolloon ci quatre milliards deux cent cinquante et un mille quatre quatre mille deux cent cinquante et un milliards yu xëcc ko ba ci quatre mille cinq cent quatre vingt neuf milliards ci atum deux mille vingt yëpp mu ngi xam ne rek nii ci atum 2021 la ñu bëgg rek moom mooy relancer li nga xam ni moom moo di économie bu réewum Sénégal fexe ba teg ko ci raay ba mu dox ba nekk loo xam ne nii daal lu neex a gis lay doon ci jamono ji nag li mu xam ne ni gouvernement bi amul jotu wax temps wu action lu mu duppee fast track liggéey ak résultat loolu la sant gouvernement am te yaakaar na ni loolu bu ci gouvernement bi euh, taxawee dina mën a sotti dialogue bi nag nee na musu jóg mi ngi woo ñëpp ku ci nekk doomi Sénégal Sénégal pour tous ku ci nekk dugal ci sa loxo ngir ñu mën a xeex ba fexe ba teg réewum Sénégal ci naataange goo xam ne nii gu sax dàq la Babacar